quand il y a eu justement le, bateau le le naufrage du bateau le Diola. Walfadiri avait une musique. Quand on entendait cette musique, on se rendait compte qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui était en train de se passer, que ça soit positif ou négatif. C'est Sidilou qui a été le premier à attirer l'attention du citoyen sénégalais sur waa li ma wax rek comme ni ma ko waxee ci biir euh, film bi documentaire bi Sidi Lamine du ñu noppeek di ko jooy waaye tamit dañu dafa nekk ne demam bi itam daf ñu sas daf ñu sas ndax qualité yi ñu gis ci moom dafa nekk qualité yoo xam ne nii ñun ñëpp ñoo ci war a sukkandiku pour gën a rafetal suñu nekkin ak suñu taxawaay ci réew mi ak ci kaw suuf Sidi Lamine nitu pas pas la woon Sidi Lamine nit la koo xam ne nii bu amee xalaatam dana fexe ba xalaat boobu mu soppali ko jëf Sidi lamin nit la koo xam ne nii injustice nanguwu ko woon Sidi Lamine nit la koo xam ne nii dafa yaakaar ne moom dundam dafa war a am njariñ dafa war a jariñ réewam dafa war a liggéey ngir réewam dafa war a liggéey ngir ëllëg loolu yëpp wane na ko guddul fan ndax amul juróom-ñaar fukki at waaye ñàkk gudd fan ba bu ñàkk a gudd fan liggéey na fi loo xam ne ni nit dim dina ay téeméeri at te liggéeyu ko loolu moo am solo Sidi lamin woyam du fay ba àddina du tukki waaw. <laughs> xam naa danga nga xaw a yàkkamti sax euh, mais tey yan souvenir rek ngay ko ci moom euh, daa ngeen bokk ay jataay lu mel ne diine ak jamono. waaw bari na nag dañ daal yenn saa yi di xuloo di waxtaan di man li ma gën a jàpp ci Sidi mooy dafa nangoo gëstu su fekkente ni idée bi mu génne moom gis na ni idée boobu yow mën nga ko ci ci ci wax dana ko gëstu ba bu ëllëgee boo leen dajawaatee dana la won ni lii gëstu na ko Sidi dafa nang fa fonkoon xam-xam Sidi dafa fonkoon itam ni debaa ak combat moom gis na ni àddinaam yëpp dafa waroon di xeex pour soppi jamono àddinaam yëpp dafa waroon di gëstu àddinaam yëpp dafa waroon defendre li mu xalaat te àddina noonu lay doxee nit dafay am lu mu gëm am lu muy yëg mu yëngatu ci moom mu fexe ba soppi ko ba mu am njëriñ je crois que Sidi bëri na loo xam ne ni tey mënoon naa ko fi fàttali ci débat yi ñu am ci égalité jigéen ak góor droit jigéen ci biir islaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen waxum démocratie wax dëgg yàlla amoon na influence bu mag aussi maa ngi fàttaliku tamit bu 2000 jàppale Abdou Diouf waaye terewul itam dafa bàyyi teleem ak débaam ak yëpp ñu nekk ci camp wu alternance bi bi ñu gisee 2011 giseen ko ci M23 toujours dafa daan rappeler M23 ñun nañ fa nekke woon toujours bu daan wax da koy wax M23 ci ñuy tax M23 taxaw parce que télévision ba da ko mettroon au service du M23 la veille ci lañu mobiliser nit ñi ba ba le lendemain ba ñu suba ñepp taxaw buntu assemblée nationale no ci démocratie nak joué na ci rôle bu magamak. waaw.